Sadio Mané bokkuloon ci équipe type monde bi euh, ci 2019 man bu ce dootuma xam té luy football parce que neexul ba neexul Sadio Mané da ngay xol performance 2019 c'est le meilleur buteur même si dee def ko am mais le meilleur buteur du le meilleur championnat euh, euh, européen et mondial même c'est l'Angleterre quand tu es meilleur buteur ci fofu mais amna na buñ euh, Sadio Mané dafa la Ligue des champions Boy xol ñaari compétition yi dama bëgg rek nga natt ko je parle de 2019. je parle bien de 2019. nga xol statistiques yi Sadio Mané li mu ak li mu ak li mu influence ci victoire Liverpool dafa leer kon nak mo gëna a ñeneen kon c'est logique moom mu bokk ci euh, maanaam li nga xam ne li nag équipe bi et euh, c'est un honneur euh, loolu nak euh, musul am joueur Sénégal bu ko bu def performance bobu xam nga man dama don togn Sadio Mané wax naa ko fi néna Sadio Mané xamul bés mënul bés mais depuis bi mako waxé ñu dem wax ko ko dégg na sax ben anecdote Ablaye Sow vice-président fédération sénégalaise de football néna na ma Sadio Mané dafa ñëw final après finale Ligue des champions bi saa né

Waouh ça vraiment moi ku wax loolu rek xamuloo football te xamuloo maîtriser football au Sénégal on a eu de très grands joueurs mais ça sax Sadio Mané mais am na koo xam ne moo njëkk a wane boppam mooy kan <laughs> mooy El Hadj Diouf ah, non mais attends El a été euh, euh en coupe du monde euh, exploit bu mu def yooyu am na

di ngeen xam ne que joueur démb yi ñoo gën a aay ñii où est Baba Touré où est Touré où Christophe Sagna ana Mbaye Fall bu Jaraaf ana Grand bu Gorée hein mais mais mais non mais attends y a eu des joueurs yoo xam ne non euh, vraiment ils sont supérieurs toj na France toj na Angleterre El Ils Diouf yóbbu nañu ba quart de finale coupe du monde est-ce que Sadio Yobou final mais 2001 2002 final ah non mais attends la contexte que mais mais mais mais Jean-Pierre Adams xam nga gars ñu Adam capitaine équipe de France ku ni un Sénégalais capitaine euh, euh, euh, équipe de France ah non il y a des joueurs yoo non non qui sont qui ont été mis locote locote gagné la Coupe de France avec ak Marseille Tchernoyoum. mais devant am ay joueurs yoo xam nga loolu c'est pas parce que Ligue Ligue des champions. Roger Mendy a joué une finale de coupe euh, coupe d'Europe Roger Mendy pas le meilleur équipe type pour qui équipe type pour Europe comme euh, qui euh, libéraux non mais attends Sadio Mane n'est pas le meilleur joueur de tous les temps et a joué. Vous faites deux deux ballons d'or la gagné deux ballons d'or africains <laughs> Sadio Sadio lundi mardi il lay gagné. <laughs> mais euh, El a Diouf deux fois le ko jël naka la ba jël ko nekk au sommet pendant li gën a jafe moom mooy nga nekk au sommet toog fa El Hadj Diouf daf ko def te man mi sa man man xam nga dama ne El Hadj mais El a Diouf dama ne bu par exemple démb euh, football bi tolloon na foo xam ne médiatisé woon nañ ko mais dama leen ne Matar Niang bu jaraaf kon ce sera le kon kon xam naa ay PSG bon bon xam nga temps euh, football amuloon ki bu ni ni ni ni waaw la mais tey c'est le cas tey quand on dit Pelé ak Messi Pelé ak Ronaldo xam nga yoyu époque Pelé amuloon média bi ki wulon noonu ñii dañu am chance média bi yóbbu leen ñëpp forcément mais yow am ñu bari ñoo xamné yo yow Pelé da koy dégg rek mu ngi premier Sadio Mané deuxième Marez, troisième Salah loolu loolooy podium bi podium baa ngi noonu da ngay jël ñoom ñett ñooy finaliste ku ci nekk nga xool ma commencé ci Salah Salah ne nga gagné na Ligue des champions meilleur buteur Angleterre hein, mom, euh, mom moom ñaari titre yooyu la am Hein Légui, Sadio Mané meilleur buteur Angleterre détenteur euh, de la Ligue des Champions ñaar euh, Marez, Mahrez champion d'Angleterre waa champion d'Afrique Quoi les ñoom les nag xool xoolal yooyu ma wax noonu léegi nag foofu léegi yow yow léegi koy tànn koo fay koo fay tànn mun naa lañu légui nak ñu ñëw ci li ñuy wax nak moy influent qui est influent ci titre yoy ñu gagné nga ñëw ci Afrique huitième de finale qui euh, euh, Égypte to éliminé on parle de euh, le ballon d'or africain éliminé nako mon bokul waxul P du jël la ko buñ ko rek affaire affaire pourtant daf ko jël fii suñu dëkk fii la ko jël kenn dem <coughs> mu ñëw jël ko dégg nga léegi nag dama ne da ngay xool Sadio Mané da ngay xool euh, kii euh, euh, léegi yow nga xool Sadio Mané Sadio Mané finaliste de la Coupe d'Afrique waaw wala de c'est le final c'est finaliste de la Coupe d'Afrique Sadio Mané ci final bii ci Coupe d'Afrique bii il a été influent ak équipe Sénégal Liverpool kii Mahrez titre bu mu jël ak euh, ak Angleterre remplaçant la woon du sax titulaire il n'est pas influent il n'est pas un joueur déterminant pour euh, qui, Manchester City euh, Sadio c'est un joueur déterminant pour qui Liverpool quand ak mu ngi revanche moy am bay bay bàyyi ba talaata xanaa de waa nak nag dañoo mën nak magouiller nag ay magouilleurs lañu ay magouilleurs international lañu tam ñu ne fii naan nono eh, eh, waaw salaa Égypte la CAF foofu la siège bi nekk ak dégg nga Salah moo gën a influent moo gën a eh, kii ma moo gën a am marketing moo gën a jaay wala Mahrez moo gën a jaay yëfu tappale yooyu bu ñu ko ëndee waaw nag foofu nag lay foofu nag foofu nag dañuy xajee Sadio Mané waaw Sadio Mané et le ballon d'or 2002 mais non yow am na loo xam ne lu tax yéen sénégalais yi mais doo leen gis dafa am loo xam dafa lee Afrique euh, noonu ci euh, ballon d'or européen ballon d'or européen avec the best the best le meilleur footballeur du monde Sadio est là-bas ñaata moo fa raw quatrième moo boo jëlee africain yi teg leen ku raw moom la ah kon li nag boo boo jëlee Afrique ci africain yi ah waa léegi africain bu ñuy xëccoo koo koy ah voilà jeex na mooy li ma la wax rek El Hadj Diouf dafa tok ci sommet bi c'est à lui maintenant de poser cette question là man nak ah je ne sais pas mais dal xamna naa euh fu mu nekk il a les amna potentialité bi pour dem euh, conquérir yenen titre mais nak tout dépend ça dépend man Sadio Mané man ma que wax né Sadio Mané dafa war Liverpool bu euh, gagner titres yu il faut que mu Sadio Mané dafa war dem ci équipe bu mag dafa am équipe dañ lay jaay di nga euh, Real ngay wala nga Barça ay titres <laughs> Barça lañ ko yox wala Real PSG ne fait pas le poids devant le Real c'est pourquoi quand Mbappé a gagné la Coupe du Monde de 2018 que finaliste rek Modric Modric ko c'est le Real qui est influent la fédération sénégalaise de football nous war a xoolaat seen bopp amel ay àq àq moo tax ba ñun ñii duñu gagné dara football bii du gagné dara àq moo top, ni ñiy diriger football du Sénégal àq moo leen topp yàlla ca njiit ba lay commencé xañ la dara parce que am na loo xam daf fi am je me rappelle d'un soir, l'équipe nationale junior de Zambie a gagné la finale, de la Coupe d'Afrique. Ni avons Ni 250 000 pour nous yobou sen wakke. Au même, d'un coup, ça n'y a gagné la de Bitsoke Coupe d'Afrique. A report, nous y a un diagonal et d'un bisi. Mais a fait yooyu ak yoy mo len top moo tax ki injustice bi am ci football bi moo on ne sera jamais on va pas gagner de coupe naka la entraîneur meuna a taxaw ba di jox di wax wax bu sax mais c'est insulter les sénégalais si c'est fan la tek lolu sénégalais yi di koy fay mu nan doomu Sénégal bi doomu Sénégal bi moy dugg équipe nationale bee du dugg équipe nationale yeen lolu yeen lolu noonu ko gisé Alice, c'est fallait te... mais, mais non, mais attends. allez Alice, il faut que nous soyons capables. D'abord, que nous soyons capables. Légui, histoire, fin de l'ordre, encore L'outa, quand moi, je suis champion d'Afrique, Algérie. Algérie. nous moins, on deux fois, tu coupe d'Afrique. Euh, Damane, quel est l'effectif pour Algérie Nous sommes barrés ci golf bi lañu ñu joué ñu ngi ci golf bi fofu lañu ñu joué ki ñu rey ki ñu duggee ki duggee premier but bi euh, waaw waaw ko fu muy joué golf la nekk dama ne le euh, le championnat le moins coté gis nañ fa joueur bu ñëw imposé wu joueur boo xam ne imposé nekkoon championnat boo xam ne kenn xamu championnat boobu nga ñëw nga imposé wu en équipe nationale dal na Sénégal am na fi ay exemple yu bëri yoo xam ne tey jii tey jii

parce que moom bi mu il dafa bëggoon ñëw euh, euh, indi empreinte am empreinte am boobu mu bëggoon ñëw indi il fallait que les gens, moom mu mu indi benn benn alibi. waa fédération sénégalaise de football nous waxu tappale yooyu ñu naan c'est l'ambassadeur des équipes nationales wax ma duggal dans l'organigramme des euh, sportifs l'organigramme des sportifs nga xool ndax titre boobu am fa wala poste boobu am ambassadeur des équipes nationales fan la amee xam nga c'était pour faire plaisir à Macky Sall qui c'est le conseiller comme que mu koy politiquement na nga a euh, kii El Hadj Diouf far noonu léegi El Hadj Diouf mu ngi doon dal seen kaw di dal seen kaw gars yi kii ko ko pour mu noppi je défie El Hadj Diouf dootul waxati na wax mbóot yaa ngi ci biir na wax bi mu duggee ci biir gis na ay El je le dis El Hadj Amna am na ay mbóot na wax Kha mnenen, li mou don wak, degle de. Li Elay Jouf don wak, yip degle. Bi mou dugen, gen nou kou gis, mbote an yifofu, ti futbal bi, nèk wak, dou wak, lèy nopi. Lòl lèw gaye Bougon. Sistèm ou, mafya politik mou am dan le futbol. Mafya politik, bon mwen gis ti politik, mafya politik mou am ti futbal bi. Ngen dam mafya politik, mwen ak wak. Damane, denyo Bougon. Paske, eh, yo, à Cissé renouvellement contrat à Cissé kan là, Macky Sall ah waaw du la wax carrément non Cissé na togat. fédération dañu am fit am nañu fit ba ma Augustin roule pour Macky Sall l'UCC Cissé dafa nul ah, loolu moo ma booleeg ñoom football bi fi mu def nii man man depuis bi ma nekkee football lan moo changé man loolu laa bëggoon kuy changé football bi laa bëgg loolu moom ma boole ak waa fédération changé wu ñu dara lan la ñu changé lii am fii amoon na fi lan moo fi changé lan lañ fi ah, lan lañ fi changé dañoo def loo xam ne kenn def ko fi woon jël nañ coupe d'Afrique waaw lan lañ fi def lu kii lu extraordinaire L'UCC a fait 5 ans en équipe nationale pour amener l'équipe nationale en en finale ñeneen ñi fait trois ans Mom, en 5 ans je ah, ah, diir def at dromi at yow alors ah, forcément chance bi nga am Yo, amé. yow wax may chance bobu cinq ans di nga waaye amuñu deux ans trois ans ki fi que yag hein? sax deux ans si c'est mo fi def cinq ans di un salaire 15 millions ñu jox la millions may la ko may la ko final demoon final 2002 loolu moy lan eh, eh, mbay Diagne ñun média bi ñun ñun ñun nit ñoo fi nekk di bind oui mbay Diagne meilleur buteur nangam te ay pénalty la daan dugal. gars yi bëgg jël mbay Diagne teg koo xam ne ngandam joueur ba Aliou Cissé moom itam gumba xamul moom xamul dara dem tam jël ko indi ko léegi loo bëgg lii rek juum na ñu ko indi lan la koy apporter. depuis deux ans man maa ngi koy wax Kalidou pag foofu du place am imposé wu na en foofu ba pare dafa waroon dem bi ko Manchester United njëkkee soxla boobu la naroon dem na dem foofu du place am tant que mu ngi foofu deug deug deug dëgg il ne sera pas le meilleur Van Dijk Van Dijk bi ñi wax ni Kalidou kulbel moko man waaw léegi nag na dem na dem ci équipe yu mag mais xamna né année bi doful tok fofu dé dina dem dé Aliou Cissé nañ ko dakh Augustin Senghor na bayyi suñu football Macky Sall na bayyi sport bi muy politiser wala ñett yooyu laay laay ñaan mu am. TFO TV TV jaajëf waay kontaan naa ci ñi